tendance pour ren si taw korité bi bëri na moom ay kool yu mag ak kool ndaw façon yëpp genre bëri na comme genre kool yi nga xam ne chiffon Dubaï ñoo xam ne am genre bi chiffon Dubaï kashka bi mooy chiffon Dubaï yu bees la su yu mujjee wàcc la mais bokkul mais bii moo njëkk a wàcc yére bi nag bokkul ba léegi ni ñu koy liggéey ak yére yi ni muy nekk ba léegi am nañ différence genre yi yëpp moom la quoi kool chiffon chiffon Dubaï la moom mooy rek nekkul benn motif mooy non col chiffon Dubaï ak seeguñ ci col xale yi ñu ngi si col chiffon Dubaï ba léegi col Dubaï waaw mooy col Grand Dame quoi genre ñu ne bi bee chiffon Dubaï la motif duñ benn ma bëri na ay motif nekkul benn motif ay sama motif yu bëri lay nekk quoi yi mooy col sañse yi waaw ñoom pour sañse la ñi nga xam ne dañuy marié ak yooyu noonu genre ak takk jàkke yi i genre yi lañ koy kiiyee quoi moom mooy col takk jàkke yi marié yi col pour xale yi bi moom moom mooy kolo xale yi mom mhm. lay day bëri ay modif xalé mom moom da ngeen programme lu bëri mo ra seen bass mom lay ay variété yu bëri lay nek bëri lay ay variété tamit nek ben modif kasse ay modif rare yo xam tamit fi rek lañ ca mën a amee si état établissement Fallou Kolo wa xam nga model yi nak mom comme tendance korité la ñu wax fokh ñu variété génnee model yu bees génne ay yoo xam ne pour disquette yi ibaadu yi man moom toujours li may wax rek dama far ak ibaadu yi ndax sama rakk yi ay ibaadu lañ da nga leen di génneel yoo xamante ne nii gis nga modèle yu ibaadu yi modèle yu ndaw yi pour ibaadu la am na caw sa xiir yi yooyu yëpp pour xale yi la jàkkaarloo yooyu yëpp am na si am na itam grand dame yi comme genre yi mooy pour grande dame yi ñi nga xam ne ñooy sol grand mbubu yi ak robe yooyu ak xale yi sol tay yooyu yëpp am nga boo xamante ne boo ñëwee rek bu ñu la ko proposé di nga kontaan incha allah. comité euh, xam nga ne ñun amuñ kii euh, temps sax pour di exposé lii sens la sax ndax euh, sama cliente yi ñoo may commande yi dañ may oo commandement bu ñu ñëwee ma livré leen comme doo am temps pour exposé dañ koy bëgg nag parce que client dañ koy bëgg. des fois da gis ñoo xam dañuy ñëw yàkkamti dañuy bëgg ñëw rek jël seen euh, jënd teew daal di dem mais des temps bi du la ko may parce que mënoo jël euh, nit oo la la xaalisam jox la xaalisam nga war ko defaral di defaral koo xamante ne nii ñëwagul xam nga loolu du yomb moo tax commande bi daal sur commande la ñuy gën a liggéey. yooyu si fond du baay bi la cash bi lu ba léegi mbërëm say motif moom nekkul benn variété en tout cas mhm. ak bii yëpp moom la nekkul benn motif. waa bëri ay variété moom waaw instant moom ibaar yi moom ñu ibaar yi dëgg-dëgg moom lañu xam ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax te raar moom la ñuy jënd nga colomarié blanc day am blanc blanc doré moom nag bër ma def dessin yu bëri lay neex quoi comme genre bi bi tamit est-ce que fête bi am na ñoo xam en même temps moom jël pour fête bi waaw ah, mhm, pour ma fête bi am na ñu koy koloo ñi nga xam dañ koy poloo ku si korité bi waaw euh, instant yi couleur yi gën a jënd nag blanc la blanc doré ak doré ak noir. Mhm. col yi ça dépend nag prix day variété fekkee col yu moom col yu ndaw su seeree ba seer dix mille la si dix mille dix mille mhm. yu ndaw waaw suñ jugee si xale mag yi tamit ñu si mhm. yi mooy asli macha allah kereb bi

lii mooy jar trente la waaw mhm. trente lay jox premier choix macha allah te bëri na émor nekkul benn façon yooyu yëpp dame bi la genre mooy premier dame moo tam dafa bëri ay dessin bëri na ay motif nekkul benn motif kese bëri na ay dessin yu bëri mhm. mag waaw góor ak jigéen yëpp waaw HLM laa yëngatoo ci biisu yi xam nga fi mu nekk nii na damay toog sama kër di business di jaay. man euh, bi ci fête bi euh, mooy per dafa xew. per dafa xew te xale yi dañ koo jël léegi macha allah moo tax rek ma wàccee euh, moo tax ma wàcce cristal yi bi per pur la ba pare vert la waaw. waaw vert la yi per pur la ba pare vert la. ci tendance bi la bokk. moo tax ñu def ko aussi multicolore bi. dafa xew bu la neexee def ko comme nii ma def caq ni bu la neexee nga def ko aussi njara comme nii yëpp ci tendance bi la bokk waaw comme bi ma takk bii tamit euh, xale yi xaw ma nañ koy tuddee xaw ma biling biling xaw ma daal yooyu lañ koy tuddee bii tamit per lañ ko def aussi génnee ko tamit tendance dafa xew fi mu nekk nii korité bi daal per dafa xew macha allah waaw moo tax ñu génn ak euh, jaaro yi aussi waaw ay jaaro loxo la non jaaro loxo la dafa xew serpent bi aussi jaaro la mooy xew yi léegi macha allah yi tamit benn bi rek boo ko takkee sa loxo fees lii moom pour jéeg jee tax macha allah moo tax ñu indi ko tegal leen ko rek si marché bi. waaye yi tamit la mu xale yi la xam nga korité mag ñi dañuy defar rek gunge xale yi mais xale yi aussi ñoo ko moom parce que seen yëf la moo taxit ñu def euh, la mu xale yi macha allah. wàccee ko rek pour xale yi boo amee doom ji jigéen macha allah lu mën a sol boo ko sànnee rek tey kontaan moo tax ñu indiwaale ko macha allah am na yeneen yu war a ñëw nag fi mu nekk nii bu korité bi desee ay 4 jours trois jours yu gën a garaaw yi dana wàcc. Mmh. si jaare yi matelassé yi. waaw boo ko dee yeneen genre si jaare yi ba léegi. ba bëree fa sa quoi waaw. moom fa màkk la jógee direct. te nit ñi ñu koy jënd bu baax baax a baax. waaw nit ñi moom ñu ngi koy bu baax a baax. góor ñi la si ëpp lu ñuy jàllaabe. na ins bi ko korité bi léegi nit ñi daggatuñ ba yéen dagg ko def ni nañu la am lu sol lek dem julli ji jàllaabu góor am na waaw hmm? pour góor la waaw ànd ak max ne mooy ànd ak max ne moo uri naa la hmm? non boo ko def choix ba léegi boo ko def am na bu ko gën a noolay bi bi coton bi la hmm. moo mooy jàllaabu original am na comme genre bi tamit façon yi comme bii dama ko wala tout simple am na ñoo xam duñ suñuy bëgg a junne duñ bëgg lu sol lu amay rey rey ak yooyu noonu genre bi VIP bi la quoi mooy Idrissa bi waaw mooy VIP mooy bi mooy Idrissa bi boo ko rek yeneen façon ëpp li ñuy jënd waa si kii bi quoi. waaw am na ñu indi comme mbasin nii comme tey kii sama cliente bi saraxule la daf ma indi la euh, mbasin pour ma defaral ko am na ñoo xam ne tamit dañuy indi seen i euh, lu ñu yor seeni borode ñu defaral leen am na nag ñoo xamante ne tam dañuy choisir pour ñu defaral sunu tissu jox leen parce que musóor yi lépp lay àndal euh, waaw. pochette ñun ñooy defar pochette yi éventail yi caw sa xiir yi. waa en même temps uppukaay am na tam uppukaay normal. waa caw sa xiir bi mooy fourrure bi mooy bi am kii bi. bi am caw waaw bi am na pochette bi su nga bii caw saxiir bi bii moo génn ren si korite gi xam nga xale yi def ci jàkkaarloo nii no bii moom du uppukaay bii création la rek waa caw saxiir daal xam nga rek comme moo xew <laughs> te ñun dañ bokk si mouvement caw saxiir ah ku ne xam ne ne day bari Balla Gaye moom ci mouvement caw saxiir la bokk te ku si bokk daal xiir gi da daal <laughs> cliente bi su ko ñëwee jënd da koy téye nii rek. pour ak plaisir quoi xam nga rek waaw. Mhm. itam la yi la am na nag yoo xamante ne tam pochette la ñu créé ko encore gis bi comme bi tey pochette la gis nga. ñu def suñuy création nii bopp ni xam nga rek defar. d'accord ci ëpp ñun nag jaaxanke yi lañ ëpp ñu ñuy liggéeyal ak saraxu lay. waaw sénégalais yi nag tam bëgg nañ ko mais. ñom comme yu discret comme genre bi quoi wa yu simple lañu gëna bëgg dal jaaxanka yi daal ak saraxu lay dal lañuy gënd gën di liggéeyal waaw euh, waaw korité bi nak kii ni wa yi ni dox na torop macha allah comme façon yi comme genre bi ni gis nga wa wa yi ak tagal yu mag itam pour euh, ki maire yi xam nga duñ nangu def bop kessé dañuy bëgg ki yi mom ibadu yi ñokoy gëna soxla parce que dañuy defar seen bopp comme ñoom duñ teg greffage ñuy choisir euh, kii bu ñu muuroo ba pare daal di jël seeni chapeau teg quoi. d'accord fulaar yi dem na ba ñaata fii. fulaar yi nag dem na ba 20000. ça dépend soo ñëwee fii daal moom nu sa poos toll allah di nga am fulaaram incha allah. client yi est bu baax wala dañuy xaar. non euh, ren moom xamul da xam naa dañuy xaar ba dernier moment yi nag. ndax heure bii dañ naan dañ naan teel a teel ñëw. dañ naan teel a ñëw en direct moom moom moo demeewul noonu nag gars yi xam ba dernier moment yi daal dañu ëpp li ñuy ñëw ndax hmm. léegi moom nit moom ñu ngi muuru moom léegi moom nit ñi moom ñu ngi muuru bu baax a baax sax ndax kii naa kooli moom ñu ngi jaar na surtout fekkee événement événement deux jours trois jours la ëpp la ñuy nekk si événement ndax euh, da euh, ñiy jënd ko ñu bari ñu bàyyi ba jël seen yére yi ba pare soog a soog a ñëw pour jënd seen kool hmm.